méttee métti boo xam si kon moo am léegi nii ca Bargny ca route nationale ba ñett doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ñaar fukk jële ci gaañu gaañu am ñoo xam si gaañu gaañu yu méttee métti la benn camion moo mbëkk ab bus tata ligne 39 bi jamono ji nag ñi ciy gaañu ak ñi faatu ñëpp yóbbu nañ leen ca l'hôpital ya nekk foofee ca Tëngéej ci Abdou Diouf Diagne. ci Bargny ab accident moo am ci route nationale bi ba ñetti nit nag daal ci ñàkk seen bakkan ab camion moo 29 dawalkatu camion bi nag dafa daal di ñàkk contrôle bi bu ñu sukkandikoo nag ci suñu ay xabaar ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci accident bi kenn ki jigéen la ki ci des nag am mag la mu fekk baax ca bar ñi ñetteel bi nag bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fekkee ku dëkk bitim réew la te doon nit ku weex néew yi nag ñu ngi leen yóbbu ci bërëbu fajukaay yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi lépp ñaar fukki nit nag daat nañ ci am ay gaañu gaañu si ñoom sax nag am ñu si gën a mitile ba tax nag ñooy tiit ne bilan bi nag dina daal di yokku ci fàttali yoon boobu nag bëri na lu ñu fay nemmeeku ay accident askan wi nag yoon ñuy sàkku ñu daal leen fay amal ay doodaan bu yàggul dal nag ak gonek taali bi gu doon jéggi tali bi la benn oto daal di mbëkk mu daal di jaare ñàkk bakkanam pour nag nga xam ne bëgg ñu defal leen ay publicité